tey bésu altine 25 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat examen yi may lim ci junni ak juróom-ñeent fukk ak benn test yi ñu def juróom-ñett ak ñett ñoo ci positif madame. juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent cas contact ak ñeenti cas communautaire benn ci Scat benn ci Cité Apexi benn ci Rufisque benn ci Thiès juróom fukk ak juróom-ñeent ci malade yi ñu ospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak juróomi cas ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dale ci cas bu njëkk ba senegal wàññi na ñetti junni ak téeméer ak fanweeri cas positif junni ak juróomi téeméer ak fukk ak juróom wër nañu ci fanwer ak nyak ñàkk ci seen bakkan mu des junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu teg digle yi nga xam ne moom la ñuy ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam